àddina asalaamaaleykum Gambie nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha nag tey dafa génn si biti comme nu mu ko faral di defee rek business profile lañ wax dañ ne looy yëngu tey nag maa ngi ñëw fii nii si Afrique Design ma fekk fi jànq bi jaay yëngu ma xama jéeg bu jàng ma macha allah moom na dir yànka la gisoo mu ngi sañse ba mu baax dama koy bàyyi mu nuyoo rek wax ñu moom mooy kan laataa ñuy dugg ci question si asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam Aïcha ah, maa ngi nuyu képp kuy seetaan Sahel TV. maa ngi tudda Fatima Sawane nit ñi yang ma xamee nag IFO ah, di founder of Afrique Design am an entrepreneur te amee also a banker te amee fashion designer too yes moom jàmbaar yi xam yëngu si koppar yi rek yow moo la soxal mu ngoog léegi lan moo la inspire to be to open this Afrique Design ok man since I was young comme ñu bari dañ ma xamee comme Uh, muba yu bëri yu ma sol sometimes mako de dee designal suma boppa so da ngaa gis ne comme daanaka time of marché bi ñëpp ma xam so I was like so mu ma uh, starté study MDI ma manu study banking and finance so ñu éega si benn topic entrepreneurship so from there I was like what of man man ma start my own business ma xool lu ma gën a good at ma def ko so that's why ma ma toog ma xalaat ne ah foog naa am good at fashion designing so war of ma ibbi ma own shop so fii fii laa so ma ne ma use ma space bi for now ma start so ba kanam ma xool. kon yow tamit waa Banjul nga <laughs> ba tur tur bi ko andi Afrique design. ok Afrique design ko is a shortened word dama ko African design laa ko bëggoon so ma instead of using the full name ma def Afrique design. yeah sure noonu la tur bi ñëwee about so bi balaa may start nag dama doon tur yu bari moo ñëwoon suma xel so ma end up with uh, choosing this name Afrique Design waaye balaa uh, loolu yëpp di happen so ñu bari dama dee toog man ah dama bëgg a name suma atelier bi so ñu bari jox neen ma ideas name so dangaa use name boo xamante ne is unique name boo xamante ne at least ñii suñ ko déggee dañu xam ne waaw lii is a tolerant shop so that's why I come with the name Afrique design not uh, Timas design or something cause ñu bari dañ lay faral di use seen tour so moo tax ma ne ah xaaral ma use this Afrique design cause Afrique dafa neex ba pare so so so sooy choose a name uh, si sa business da nga war a use tour boo xamante ne at least ku ko dégga comme dina dina neex si moom daal waaw dina xam fu mu jógee dina mën a dem tam worldwide képp ku dégga dina xam ne waa kii africain la moo tax start uh, stroke turib business am bi na Afrique mu ngoog léegi yow naka nga dee jote sa supplies yi ba pare kan moo la dee gën a ñawal ndax danga fi am ay ñawkat wala da nga dee ñawlu di ñëw di jaay. non dama fi am i ñawkat so am na daanaka foo ñawkat waaye kenn ki dafa demoon Sénégal so da ngaa gis fu mu nekk nii ñoom ñett rek a fi nekk so am naa i ñawkat ñu ngi si biir fii is just a showroom ñawkat yaa ngi si biir soo ñoo dee ñaw suñ paree ñu indi ko fii nii so ñu display ko fii nii. yeah so loolu la su afta dañ ko dee def si social media si so foofu la dee gën a jaree daal daanaka so soo gisee fii nag fii dafa ruxe so waaye uh, social media man moo dee jaay suma product oh, tur bi jiitu na borom comme nu ko olof de waxee ñu ne tur bi jiitu na borom léegi yan façon lii nga dee nga dee gën a ñaw comme si biir boutique bi parce que maa ngi fi gis yu yanja yu bëri macha allah léegi dama bëgg nga wax ma comme yan façon yi bagage nga dee gën a jaay fii ne ok man uh, Euh, ñawi góor laa dee gën a def comme dama gis ne góor yi ñoo dee gën a jënal nit jigéen <laughs> waaw so man suma xarit man suma xarit yi ñooy góor yi so ñawi góor laa dee gën a def waaye taxul tamit maa ngi ñaw ñawi jigéen ku ku order dama la dee na a war indil la ba pare dañ dee mun a def comme soo order nii nga xam ne euh, mënuloo ñëw fii ba Banjul so dañ dee mun dem ba Kombo yóbbu suñ euh, suñu products yi foofu noonu ko bugg a mu jënd or something waaw. kon maanaam da ngeen am delivery service. waaw allah léegi yow euh, comme euh, employé da nga am ñoo employé pour wàllum delivery service bi wala yow sa boppa yaa dee dem ngay yóbbul euh, business bi. ok man suma boppa dama ko dee def so man ma boppa dama dee dem. xam nga dafa baax tamit comme sooy def façon business yooyu ñu gis la in person so loolu moo dee tax next time ñu ñëwaat soo ñu gis la in person moo moo dee géndaa so dama dee dem yóbbu comme su ma tee dem tamit dama dee mun a yóbbu suma dama dee mun a yónni suma rak mu dem waaw mooy ku leen dalal fii so moo ma dee defaral yu bari nag wax dëgg ne yàlla léegi yow euh, si wàllum business bi ba léegi Euh, sa ñawkat yi euh, ndax sénégalais leen wala Gambia fii nii lañ nekka ok they are both and Gambians waaw so but xam nga comme dafa doy waar daal Gambian yi moom mooy loolu waaye am na euh, both Senegalese and Gambians waaw ñu xareñ understand bugga seen liggéey <laughs> bugga seen liggéey understand te lu ma leen wax duñ dee seet ne kii jigéen la or something so lu ma leen wax dañ ko dee def xanaa liggéey bi daf smooth mooy loolu daal yow how long nga start di def business bi. business bi comme two years. two years now cause maa ngi start in uh, 2018 April. so dangaa gis ne two years uh, maa ngi si two years some months waaw. waa léegi ba léegi sa business bi who are your main customers ba pare naka nga nekkee di dundee tamit ak client yi ba pare yow nga ne góor ñi ñooy ñooy sa xarit ah, jigéen ñi tamit naka nga nekkee di dundee ak ñoom parce que xam nga liggéeyal góor a jigéen tamit mooy loolu. man nag daanaka góor yi ñooy suma xarit waaye nu ma dee dundee client man man dama nekk koo xam ne man sa naxare maa demal man so ñëwee nga ne ma waxuma la woon lii. lii laa bëggoon customers moom da they are always right so foog ñu make sure ñu jox leen lu gaay bugga pour next time ñu mun a ñëwaat soo da gis ne man always man lu gaay bugga rek si loolu laa dee dox du ma dee bari wax bi sax si ne bugguma lii ma ne leen ok neen la ko ceeña ok ñu ah, pour ne everything mu dem smooth pour next ñu mun a am dat dat ah, ah, ko mun a waxee waaw next time ñu waaw mun a waaw waaw loolu la so basically la léegi laataa ñuy tàggatoo parce que xam naa ne time bi xoj nañu léegi dama dama laaj loo mën a xelal youth si nga xamante ne ñu ngi bugga a start up a business waaye xamoon nu ñuy def ak fan lañu war a jaar. ok uh, to start a business nag it's not easy man bu ma doon start understand nga jooy naa def naa lu nekk suma force julli bu ma musa liggéey dama jooy ba soona so dama dee dem ba give up ma ne ah déedéet loo xas ba start kay. nga make sure ne nga nga am the strength nga nga make sure ne bul bul never give up so man mentalité boobu laa amoon so ñu bëgg a start nag seen business ah, nañ make sure ne nañ am ah, something that nañ start loo xamante they are at suñ startee loolu nañ make sure ne ñu ñu ñu strive for it so buñ musa stop xam nga nga nga dem nga make sure ne nga toppa loo bul musa stop te bul xaar kenn bul xaar kenn bul xaar rek waaw man government baa ma def war a defaral lii waaw man jigéen laa dama war a sëyi understand soo nañ make sure ne ku nekk naam si si yëngu xam nga su ne ëllëg nag eh, suñ demee ba ëllëg soo demee ba sëyi nag di nga gis njëriñ bi understand planoon nga sa xam nga sa jëkkër du la yëpp or something nit ñi sax si biti du la yab sa famille sax dañoo xam ne kii liggéeykat la so nañ make sure rek xam nga lu gaay bu ko def te ne let's just uh, ñu dem for it rek ku nekk na na go for it so loolu laay advice xale yi so easy wut nag easy wut to start a business mo it's not easy xam nga dafa am some difficulties yu bari yu fa nekk especially soo nekk ay jigéen te yaa ngay liggéey ay ay góor so loolu la. wala yow Fatima yow am nga jëkkër. no, Amago Magica. Amago But very soon. Ah. Yes. <laughs> next year. Ah. <laughs> Si yow la wala si kooku noonu. <laughs> Bul worry sax. Wala yow biggest challenge so far depuis boo duggee sa business bi? Okay, uh, one of my biggest challenges um soo ko seetlee uh, soo ko seetluwee da gis ne government bi comme tax bu ñu dee charge is too expensive man si man nañ am something for the startups understand nga so da gis ne il faut nga fay tax so soo nekkee doom bi réew mi moom nga bëgg sa dem kanam il faut nga fay tax so tax bi is very expensive so and also ñaawkat itam is part of my biggest challenge so da gis ne ñawkat yi xam nga Gambia moom dangay waaru duñ dee toog na place understand te xam nga te ñu ne nit daal loo soo bëggee dara hmm, il faut nga sacrifice soo ñawkat yi tam is my biggest challenge change of these tailors tam xam nga te soo miinee loxo kii next minute nga ñëwaat amaat keneen waaye fooguloo tamit uh, su ñawkat bi si moom la wala si yow mi nga xamante ne yow lay liggéeyal balaa muy nekk sa biggest challenge parce que am na ñoo xamante ne soo leen liggéeyalee comme am na nooy liggéey ak ñoom moo tax mën a yàgg foofu noonu. waaw dëgg la waaye man daal ku ma xam li nga xam ne man nekkuma ku euh, naxaree ma waaw man naa defal lu ma bëgga rek soo defee lu ma bugga du ma mus ama yow problème so man dama leen ko dee wax always soo leen defee lu ma bëgga man du ma mus a ama kenn problème so basically loolu la rek so waaye dangaa gis ne xam nga ñoom xam nga ñu leen dee propose la la la tamit si biti ñu leen dee propose waa ñëwal naa naa la fay moo dal kii lu mu laa fayee ak so on so loolu la rek xam nga ku nekk tamit xam nga da ngaa seet fu sa njëriñ gën a nekk nga dem so basically loolu la rek. si neen si biir atelier bi Fatima danga may wax ñi nga xamante ne ñooñu lañ fi fekk. ak képp ko képp ku nekk lan la mooy ñëw. ok fii mooy production room bi fii leen dee ñëwee suñu paree ñu yóbbu ko fële ne le so suma gaay yaa ngi ni suma ñëwkat yi xare ñi ñoo dee ñëw xaftaan yu nice ak roba yu nice yu nekk fële ne <laughs> yaa so kii nii mooy maam Thierno ah, kii mooy Ibrahima kii mooy Aliou kii mooy Dadi. waaw so ñoom ñoo nekk nii ñoo dee def everything possible pour make sure ne góor yi ak xale jigéen yi waaw ñëpp kontaan macha allah ñoom ñoo nekk behind the success of this atelier yes li yow naka nga nekk di dundee korité bi nga xamante ne mu ngi ñëw mbaa client yi ñu ngi ñëw a covid 19 bi nga xamante ne sooral nañu torop macha allah waaw dal nañu torop comme time boobu client yi nu gaa yi doon ñëwee ñëwewuñ noonu so da ngaa gis ne moo tax ñu euh, ñawkat yi bari tamit nekkul di ñëw moo tax ñu profité jël ready made xaftaan yi ñëw ñëw leen ñu bari so da ngaa gis ne ñëwoon ñëw leen àppi 50 so da ngaa gis ne yu si des moom àggul sa 20 so waaw dal nañu moom waaw. waaye ni ñoo def waaye sant yàlla. waaw <laughs> léegi damay waxtaan ak ñawkat yi ñoom ku nekkee rek mu am si lum saani kàddu laataa ñuy tàggatoo. waaw léegi nag xaar ma commencé tàmbalee waxtaan ak ñi nga xamante ñu la fekk si biir atelier ba asalaamaaleykum nuyu naa la. maaleykum salaam ñu lay fay. Eh, baal ma rek baaxee ñu tur bi ak ñi seetaan nuyoo la. waaw tur bi nag moom maam Thierno daal maam Thierno waaw sénégalais waaw. macha allah maam Thierno fekk nañ la ci biir atelier bi léegi dama bëgg nga wax ñu yow ci wàllum ban côté ngay gën a yëngu ndax ñawi jigéen ñi wala ñawi góor ñi wala simple. waaw ñun dañuy yëngu ci yëpp ci ñaari différents yëpp. dañuy ñëw ñëw góor di ñëw ñëw jigéen bëgg nañ daal African design ku fi ñëw booy dem am loo yóbbaale lu lu neex sa xol daal waaw ñi ci ñu ngi góorgóorlu nag moom yombul daal ñu ngi taraay waaw ñu ngi taraay waaw. mën a wax si liggéey ak ki nga xamante ne mooy Fatima moom mi nga xamante ne mooy CEO of Afrique Design. waaw di ko ñaanal ah, tey maanaam dolli jigéen ñëpp daal ñu fexee mel ni moom ndaxte dëkk moom doomi doomi réew rek ñoo ko mën a defar daal. comme créer lu mel nii xale yi di ci di ci jariñu daal man daal damay waaw di ci gis seen bopp daal kon damay conseillé bépp jigéen rek bu nekk ci Gambia nga fexee mel ni moom daal waaw ndax tey réew moom du président rek moo ko yor waaw citoyen citoyen bu ne da war jàpp ci mi pour mu jëm kanam daal dama koy ñaanal parce que dafa baax yaru na te it am na yitte ñu ne moom daal on est ensemble daal fi la nekk di kii ba. yenn temps yi waaw. macha allah waaye yow fan nga jóge ci biir àdduna si. waaw man Sénégal laa jóge nag waaw Sénégal waaye Sénégal bi yàlla ndax Sénégal ak benn la. benn bopp la sax kenn mënu koy xar ñaar léegi fan si nga jóge. maa ngi jóge Touba. Touba waaw moo tax bu ma dugg see lu ma dégg réew ferni na ne waa Touba nga bu jërëjëf euh, maam Cheikh. maam Cheikh la tëdd. waaw noonu la noonu la waaw di leen woo daal te xam ne daal moom fii moom ku ñëw doo ko rëccu. Ah. yëpp mi ngi fii mm. waaw. Ku bi bees yi tendance dalip dal daal yëpp mi ngi fi dal waaw di wo ñep rek waaw te ñaan yalla tamit li ñu dégg ci réew mi dal kenn xamul lu mu doon tamit mu fi waaw ñu uh-huh. thank you so much <laughs> arama dem gisat kenen ki ñu ne xawma turba? tur ba waaye moom dinañu wax mom moy kan kon nak nuyu naa la baaxee ñu tur bi waaw maaleykum salaam fay naa la man may Dadi kabara ngok Dadi yow ci walum ban côté ngay yëngu wa ñun mom si walum simple bi lañu ñoo yëngu si yére jigéen yeeg yéré goor yi wa parce que ku bugga lu baax mom so ñëwé fi mom do mer so ñëwé dañ la defaral lo bugga dinañ ko apprécier dinañ la welcome nice xam nga treat la comme niñ dé traité client yee bi ko sob bi mom ñun ñëpp suñ xol yi daal ñëpp benn la daal yeah fi kenn iñané wut kenn so ñëwé motax lo dañ la ko défar ba mut sék te il suma sista la suma rakala suma cousin sista la xam nga yeah ok macha allah léegi yow mi nga xamante ne yow fir sa waxin sa firnde na ne ne Gambien nga lan ngay mën a xelal youth si Gambien yi nga xamante ne ñu ngi si biir réew mi nekkuñ di def dara and then am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a start business xamu commencé wala bëgg a yëngu si wàllum ñëw tamit amuñ ndimbal. waaw youth si Gambien yi moom nekkuñ ne bëggu ñoo def dara. because youth boo gis da nga bugg a def dara si sa life bugg nga dimbale sa mbokk yi bugg ngaa dimbale sa yaay ak sa papa soo lu gaay dee wax noonu ñun gëmuñ loolu xam nga soo soo buggee nekk si dara foog nga dimbale sa bopp ni ñuy gis ne yaa ngee def dara gars yi mun laa dimbale waaye soo buggee toog nii nii ne nii rek du mun a dem gars yi dañoo gis yéen yoo xam ne sa foog ne yow bugguloo liggéey fekk a demee wut fa noonu starting nga amut loolu mooy problème yi Gambia waaye soo amee starting da ngaa mun a dem. waaw comme comme effort rek gis nga nu mu dooree nii xale bu ndawla soo ko gisee xam ne ndoo bu ndaw la waaye mu ngi try xoolu si boti kenn gars yi koo jàppale mu ngi dem nice ñun tam ñu ngi see jàpp mu ngi dem nice kenn amu si hard feeling soo ñëpp suñ doon def noonu foog naa yuut si kenn du toog yee dafa dem kanam yee thank you so much dari kamera Harum ma lo fenen rek mën a waxtaan ak ñeneen ñu ci des mu ngoog jàll leen si kenen. xaaral ma nuyu kii tamit mu wax ñu moom mooy kan asalaamaaleykum nuyu naa la. maaleykum salaam na nga. bi Sano. Alu Samb Alu yow senegal nga wala Gambien No mang man Gambien la Gambien la Mang Gambien. man premet. yeah Primate. lan nga ñëw mën a wax si wàllum li nga fan nga ya. non ñëw bi moom comme sant yàlla rek xam nga góor la comme nit ki na nga sa bopp rek lu jot yomba ama fi xale bu tamit ama teel a gëm suma bopp ni wala loo di def wala na nga yee man loolu am pour wax eh, ah, gars te yàlla sa dina la si jàppale parce que dafa ne jàppale sa bopp ma jàppale la léegi yow dafa mel ni design bi nga nekkee di yëngu de. waaye ah. man design la man yee dama dee design. thank you so much Aliou yow gis naa ne suma papa nga parce que man suma papa Aliou la tudd. thank you ma jàll ci keneen moom itamit. asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam fay ñu tur bi. Ibrahima Diaw. Ibrahima Diaw. maa yow nekkoo jaween bu bëgg lekk rek. non non non non <laughs> kii nekkul jaween bu bëgg lekk <laughs> waaw. mun waa Ibrahima Diaw lan nga ñuy mën a wax si wàllum Afrique design yow fan nga féetee si wàllum ñaw bi. waaw ñun moom ñu ngi féete ci wàllum design bi léeg-léeg ñu yëngu ci simple bi tuuti rek mais taxu koo bari quoi ci design bi daal lañ gën a nekk daal di ñëw ñëw góor yi ak ñëw jigéen yi yëpp waaw. di ci nank rek. yow Gambien nga wala Sénégal. wa man sénégalais la sénégalais nga way dafa melni ni léegi sénégambien nga de gambien baa nu ba. wa batay tey sénégambien <laughs> parce que yagna fi trop yagna fi trop sama xaleel yo presque fi la ko defee fi la jangé métier 2005 ba léegi ma ngi fi quoi fi la jàngee métier fi la liggéeyee wa daanaka daal fii laa gën a féetee quoi. suma démé demee Sénégal presque événement événement lay dem Sénégal lool la. yow <laughs> kay Gambien nga yow kay bul waxati sénégalais. <laughs> wa presque Gambien lañ mëna doon quoi. jërëjëf. ok merci beaucoup. waaw comme que léegi nag ñu ngi jàll si caati atelier bi xaaral ma waxtaan ak moom rek nala. naa la. ziyaara naa la. baaxee ñu tur bi. Fatoumata Cissé. Fatoumata Cissé Cissé ngaari mbaa bëggoo lekk rek yow. <laughs> déedéet. waaw yow fan nga féetee parce que gis nañ ne yow macha allah Fatima tudd na sa tur si suuf mais yaa fi nekk di ko jàppale yow fan nga féetee si wàllum. man dama fi nekk di jàng ñaw rek ak yooni. ak yooni <laughs> waaw. léegi lan ngay mën a wax Fatima. ah dafa baax nag fii moom ke ku fi ñëw moom kay daf la dee entertain waaw te Afri design bi moo nekk di best design waaw. Mm. so much léegi lan ngay tëjee tàggatoo ñi nga xam ne ñooy seetaan. <laughs> moo gay ne korité bi bu mu raw kenn ñoom ñëpp ñu ñëw Afri design. thank you so much <laughs> waaw léegi comme que ñu ngi nii di génn ci astale bi laataa ñuy dem di tàggatoog Fatima dañuy joxaat di dajee rek. looy yëngu la business profile ay tey woon ci biir kër gi waaye tey nekkuñ ci biir kër gi dañ génn dem ci mbedd bi bëgg a waxtaan ñi nga xamante ne ñoo nekk business profile ñu ngi génn atelier bi gis nga atelier bi nu mu neexee waxtaan naa ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey. waaw Fatima euh, léegi balaa ñuy tàggatoo da ngay da ngay joxe li nga xamante ne mooy adresse bi fii nga xam ne foofu nga nekk ak contact yoo am ne nit ñi mu neen la jot ak foo xamante ne mën nañoo jot waa Afrique Design rek ñi nga wax leen ko nit ñi mën a xam. ok Afrique Design is located located in Banjul, number one Thompson Street. Um, swing telephone number nag mooy 77 so is booy mu ngi whatsapp soo ñu bëggee text in whatsapp so ñu ngi am tam facebook page instagram page ak snapchat so ku ñu bëgg a contact rek mun na mun nañoo contact at Afric Design facebook instagram ak snapchat yeah basically loolu la. waaye laataa ñuy tagato dafa am lu may faral di tek ci table bi bala ñuy tecc dag may liibal wala nga woyal ma legi def ci bena Fatima parce que man Fatima Sawane dafa nek ko xamne ne saraxule bu dégg olof la legi dama bëgg ba liibal wala mu woyal ma def ci ben diga no nañ bàyyi next step, ma. nañ bàyyi next step. <laughs> ko na mu go legi dama lay bàyyi Fatima nga tagato ak ñiy ma maa euh ma ngi ah, tank suma customer yi ñoo xamanteni ñoo ma di keep going Um, ñoo ñeneen ñi moom su ma leen ñawalutee moom duñ dee kontaan so maa ngi tag suma customers si ñoo xamante ne always they are choosing Afric design always dañ dee ñëw fii nii di ñawlu so maa ngi tag ñoom ñëpp mala mala tag yow tamit ay ak sa caméraman bi uh, thank you so much for coming thank you <laughs> thank you so much Fatima gis nga mu ne dafa kontaan ba xamul sax nu muy tëjee kon nag yéen nag yéen mi nga xamante ne yéen a doon seetaan Sahel Network TV looy yëngu lañ wax Aïcha nag tey dafa génn si biti ñëw fi nga xamante ne mooy Afrique Design jàkkaarloo kii di Fatima Sawane na thank you so much don't forget to subscribe leave your thumbs up and then the comment